بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد أحييكم بتحية إسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginnaaw bi sant yàlla subhanahu wa taala ñu ngi nuyu waa kër ñoom Omar Omar Niass nii ñu ngi leen di yóbbate li nga xamante ne mooy dara di leen xamal li nga xamante ne moom mooy à chaque fois dañuy amal li nga xamante ne tour moom mooy tour ki nga xamante ni membre la wala koo xamante ni moo ñuy nekk ci ñu day jaar ñu xam waa kër seen waa kër moo tax ne tey ñu mayal ko li nga xam ne moom mooy tur tur bi tey te bi ñu war a def tey mooy histoire des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy oustaz Saïd bi yaakaar na ñun ñëpp xam nañ ko comme waxtu moom moom moo ñu xawoon a xat kon dañuy tàmbali bàyyi ki nga xam ne mooy oustaz ndaxte Olof Njaay nee na nit soo amee gan fexeel ba li nga koy terale mooy nga bi ko sa say nopp kon ñu ñëpp ñu bàyyi ko xel incha allah kon oustaz tafadal mashkour
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dooli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam ñu ngi ñaan buur yàlla subhanahu wa taala suñu jataay bi yal na ko yàlla boole ci jataay yi mu nangu ñu ngi ñaan allah subhanahu wa taala suñu liggéey bépp ñuy def yal na nekk yàlla kese kese kese kese yàlla buñ ci gis suñu bopp su ko defee ngi dajawaat ak mbokki jullit yi di fàttaliwaat ak yéen tomb bi nga xam ne tey fii nu toll ci sunu dund ñun ñi nga xam ne dañu wax ne dañu bëgg a roy yonent bi alayhi salaatu wassalaam war nañu fàttalante tomb bi bu baax a baax a baax lan moo tax mooy dafa am différence bu rëy bu dox sunu diggante ñun ak saxaabatul kiram alfarq baynana wa bayna saxaaba farqun kabir différence bu dox sunu digganteeg saxaaba yi différence bu rëy la bu rëy rëy rëy rëy ñoom dañu amoon sens yenent alayhi salaatu wasalaam di jàkkaarloom ñoom di wax ak ñoom ñoom dañu amoon sens léeg-léeg ñu toog ba ci yàgg yonent bi ne xam ngeen ki toogan fi sànq kan la ñu ne ko déedéet yàlla rekk xam mu ne leen jibril la ñoom dañoo amoon sens alquran di wàcc ci seen dund lépp lu ñu def alquran ñëw ne nii la wala du noonu ñun nag alquran bi dafa ñëw globalement suñu kaw gisuñu yonente alayhi salaatu wasalaam waxuma la ak jibril waaye ñoom sens boobu ñu amoon dañ te profito dund alquran bi à la lettre yonent bi alayhi salaatu wasalaam lim doon leen doon jàngal dañ ko dund à la lettre amuñ ci yox-yoxal yal na yàlla yërëm ki wax ne ñun juróom-ñaari aaya lañ doon jàng duñ ko weesu lu dul ñu jëfe juróom-ñaari aaya yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon na wax gaa yi Abu Bakar de rawewu leen lenn lu dul mbir mu nekk ci xolam shay'un waqara fi qalbihi ñoom alquran bi dafa dugg ci seen xol ñu jël aaya yi di ko dund di ko jëfe muy daw ci seen deret ñun nag wax dëgg yàlla loolu moo nu manqué tey tey boo xoolee xeet yi fi ñu toll ñoo ngi ci préparant préparation 24 décembre ak 31 décembre soo xoolee xeet wi tey ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci te boo doon xool loolu fan la jóge ci yahudi ak nasaraan yi loo xam ne bokkul sax sunu diine su fekkoon dafa bokk sunu diine sax du farata du sunna waaye xoolal tey boo duggoon ci marché yi da ngay fekk jigéen ñi yàlla alak ñuy lambar lambari soo leen nee lan la 24 di nga ci gis sëy bu tas parce que 24 di nga ci gis mbokk gu yàqu parce que 24 est-ce que saxaaba yi noonu lañ meloon saxaaba yi yàlla moo leen tagg ci quraanul karim mu ne radiyallahu anhum wa radu anhu ñii yàllaa leen gërëm ñoom tamit ñu kontaan ci yàlla yàlla moo ne laqad radiyallahu anil mu'minin ñii dama leen dama kontaan ci ñoom dama leen gërëm waaye lan lañ def ba yàlla gërëm leen ñi tas l'islam ci àddina bi tey ba ñun ñu jot ci ñetti téeméer lañu woon ak fukk ak ñett keroog ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàkkaarloog yéeféeri Quraysh xam nga lan la leen wax nombre bi ngeen nekk tey nombre bi la Daawuda àndoon ci armée Jaalut almet armée Taalut ba rey Jaalut ñetti téeméer ak fukk ak ñett ñoom ñoo doon nombre Badru keroog ñoom la yonent bi xool ne yow yàlla ñii buñ leen reyee kenn dootu la jaamu ci kaw suuf kon yow yàlla yal na nga leen dëgëral lan lañ def ñoom ba buur bu toll ne borom bi subhanahu wa taala ne kontaan naa ci ñoom xoolal Omar ibnul Xattaab xoolal Ousmane ibnu Affan xoolal Aboubacrin Saddiq xoolal Ali Abi Talib radiyallahu anhum jamian xoolal ñooñu seen dund jëlal par kenn kenn jëlal Aboubacar keroog bi mu duggee ci lislaam mu tàllal loxoom yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di teg loxo ndey jooram mu daal di jël loxo ndey jooram teg Aboubacar benn laaj la laaj yonent bi benn laaj mooy lii ma dugg tey lan moo ma ci war yonent bi ne ko li ma ci war moo la ci war Aboubacar daal di génn commencé dugg kër yi porte à porte premier jour bi mu duggee bi mu génnee woote ji kan la indi Ousmane ibnu Affan deuxième jour Ousmane ibnu Maazun troisième jour mu indi Bilal mi ngeen di dégg Bilal quatrième jour mu indi arxam ibnu abil arxam juróom-ñaari fan aboubacar tegale na ko saa yu xëyee dina indi benn ponkalu yéeféer mu toog ci kanamu yonent bi daal di tuub boo doon laaj-laaj boobu ñun ak ñun ñi toog fii tey kenn ku nekk ci ñun bi nga commencé dund alquran ak sunna ba léegi ñaata nit nga indi laajal jigéen ñi laajal góor ñi am na ñoo xam ne sax ñëwaguñu mais ñoom foog ñu jëli jileen kon mbir mi ndeke liggéey la du li bokk na ci li tardeel julli di tey mooy jàpp ne lislaam julli kese la dem jàkk julli pare nañ ci wala bu weeru koor nga weer jotee nga woor wala bu la yàlla baaxee benn billet màkk nga dem aj daal di ñëwaat ñu bëri ci ñun loolu lañ jàpp lislaam koo ne yow naa nga mu ne la man julli naa ba pare de moom loo bëggati weeru koor daa wooroon naa wala aji woon naa maak noo tudd Abdallah wala noo tudd Fatima loolu moo nu tardeel sunu borom subhanahu wa taala daf ñuy wax ne laysal bir an tuwallu wujuhakum qibala al mashriqi wal maghrib walakin al bir man amana billah ñu bëri jàpp ne lislaam julli kese koor ay ibadaat yi la ibadaat leneen sa yoon nekku ci sahaaba yi nag dañoo jëloon lislaam seen dund lépp amuñu lenn lu ñuy def lu dul danañ laaj lii lan la ci yàlla wax ñu daal di jëfe loolu ñun ba léegi ci yox yox yi lañ nekk loolu moo tax mbokk yi ñu am farq bu rëy rëy di sunu digganteeg sahaaba yi yàlla moo leen fekk ñoom sahaaba yi ñu nekk ay sàmmkatu gëléem ak ay sàmmkatu xar ay sàmmkatu béy yàlla jëlee leen ci sàmm gé gëléem ñu sàmm ay nit ñu ñëw jiite doomu aadama yi jiite adduna bi yonte alayhi salaatu salaam génnul adduna lu dul sahaaba yi islamisé nañ golf bi lépp drapeau la ilaha illa muhammad rasulullah dinaaw golf islamique golf bi ngeen di dee golf arabe bi ñu tàmbalee Makka Iran Irak Koweït Égypte dëkk yi ngeen di dégg yëpp yonent bi alayhi salaatu salaam génnul àdduna dul islam dem na fa Égypte sax bokkul ci golf bi waaye yonent bi ci dundam dugal na fa l'islam parce que najaas yi tuub na ci dund yonent bi kon xoolal ñun ndeke ndeke diine bi diine yëngatu la diine yi woote la du diine yi rek julli daal di toog jàpp ne pare nga dugg nga àjjana déedéet bu doon lool la sahaaba yi ñoo ñu gën a baax téeméeri yoon te place yi ñu nekk moo ñu gën a sell waaye ñoom jëluñu lislaam julli kese kaaba gi fan la nekk màkk yonent bi fan lañ ko suul du Médine fan la Safa ak Marwa nekk du màkk fan la ajaratul aswad nekk du màkk maqaama Ibrahima fan la nekk du màkk ndoxum zam-zam fan la nekk du màkk est ce que xam ngeen kaaba gi ñaar ñaari ràkk ci biir kaaba gi ñaata ràkk lañ koy fayeeku ñun fii ñaari ràkk kese waxuma farata yi julli ay tisbaar ak subaak naan déedéet ñaari ràkk ci kaaba gi naafi la ñaata lañ koy fayeeku ñaata la toll fii xoolal ak tiyaaba boobu yëpp ak place yu sell yi yëpp sahaaba yi dañ ko faa bàyyi tasaaroo ci àdduna dem woote jili yàlla subhanahu wa taala kon seen dund waxuma la dund yonent bi waaye ñoom seen dund ni ñu koy fàttali dafa war importance pour ñun ñu roy leen borom bi day wax yonent bi ulaayika allazina hada allah wa bi hudahum iqtadi ñii laa baaxal yow yonent boo buggee baax royal ñii sahaaba yi la yàlla baaxal ñun tamit bu nu buggee baax dana roy sahaaba yi roy nag orof yi dañuy wax ne roy sooy roy nit sooy topp nit day jiitu bu doxee nga dox waaye mënoo topp nit muy dox yow nga toog abadan kon dafa nekk devoir nekk responsabilité bu rëy sunu kaw ci li fi sahaaba yi bàyyi woon ñun ñu eggali ko mbokk yi bokk na ci ñooñu nga xam ne taxawoon nañ ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam ginnaaw Abu Bakr ci liggéey bu rëy bu mu def xool leen Omar ibnul Xattaab ginnaaw Abu Bakr kan moo toog pour tas l'islam Omar ginnaaw Omar kan moo toog pour tas l'islam Ousmane ginnaaw Ousmane kan moo fi nekk Ali noonu lañ doon joxante noonu lañ doon joxante yonent bi alayhi salaatu wasalaam génn na àdduna mu nekk néegu yaay Aïcha mais kenn préparé wul di ko sang pour suul ko lu dul ñu daal di fal amir ba pare doog a jublu ci yonent bi pour wax leen ne mbir mi chaque jour loolu olof yi naan bato dem rek bato kost maanaam ku yëngatu rek keneen ñëw sa place warul am yox-yox yi warul am retard warul am tardement loolu la sahaaba yi gëmee woon diine noonu la sahaaba yi toppee woon yonente alayhi salaatu wasalaam ay junney junney junni yonent bi alayhi salaatu salaam di leen yónni guddeeg bëccëg fu nekk ay caravane ay sete ñuy dem di liggéeyal yàlla subhanahu wa taala di tas lislaam loolu moo tax day lislaam egsi ci réew mi nu nekk bu doon toog di ataaya la di nelaw kon diine ji du fa yegg bu doon julli kese la toog sa biir kër kon diine ji du yegg si fii waaye seen góorgóorlu ñoom ginnaaw ba leen yonent bi waxee fal yu balligi shahidu minkumul ghaib yéen ñi fekke tey jox leen diine ji ñi ko fekkewul ñoom ñu ne rus nañ dajeeg yàlla ëllëg ay nit dem safara te ñoom ñu doon dund te lañ takk góor ak jigéen ñi jóge penk ñi jëm sow ñi jëm gànnaar ñi jëm bëj gànnaar fu nekk tey ci dëkk yi nga xam ne ñoo wër makkatal mukarram néew na dëkk boo ciy dem fekk ko fa bàmmeelu sahaaba wala bàmmeelu taabiin boo demee Syrie fekk fa bàmmeelu saxaaba yi boo demee Inde fekk fa bàmmeelu saxaaba fu nekk boo demee Syrie fekk fa bàmmeelu saxaaba boo demee Égypte fekk fa bàmmeelu saxaaba boo demee Iran fekk fa bàmmeelu saxaaba foo dem partout nga fekk fa seeni bàmmeel xoola fa ñu dëkkoon ni mu sellee ak ni mu yiwee ak ni mu baaxee ak yonent bi li mu diggee ci ku dee Médine tey fii ci Sénégal rek am na dëkk yoo xam ne ku fa deewee rek gars yi dañ naan du nga àjjana ku fa deewee rek dañ naan du nga àjjana xoola kon ku dee Màkk xoola kon ku dee Médine ñu suul la ci bàmmeel bi nga bàmmeel yi nga xam ne dañ faa suul sahabatul kiram ngay ñëw da ngay dem bàmmeelu baqiya ñu ne la Ousmane ibnul Affan bàmmeelam a ngi nii nga tourné gauche ñu ne la bàmmeelu imam Malik a ngi nii ah nga dem Uhud ñu ne la bàmmeelu Hamza mu ngi nii waaw te terewul xoolal loolu lépp ñoom li place yooyu di sell dañ ko faa bàyyi pour gëm liggéeyu lislaam ñun do doomu ndey yi bu fekkente ne ñun dañu ne ay jullit lañ dañuy dund Qur'an di dund sunna fokk li gaa yi gëmoon ci liggéeyal yàlla subhanahu wa taala ñu gëm ko paa rek ñu bañ a daje nii di nax suñu bopp def tuur yooyu beñee lakk pasal naan si tuur bi neex na oustaz bi ñëw na macha allah dem ñu ah lii sahaaba yi dañ ko weesu woon ñaq jaas yi di dal deret ji tuuru góor ak jigéen jàngeen histoire xawla bintul usur keroog ca benn xeex ci xare jullit yi ba ñu dóoree jullit yi ba ñu sonn ba lenn ci jullit yi sax daw dellu Madina xawla ne leen lu xew ñu ne ko yéeféeri seen ngànnaay dafa ñaw te dañoo bëri xawla dafa organiser jigéen ñi ci biir Madinatu Munawwar solal leen ay yére góor wàcce leen seen muuraayu jilbaab yi ci seen kanam ñu muur seen kanam yi ba kenn du xam ne ñuy jigéen lañ ba ñu mën a gis mu warloo leen ci ay fas jox leen ay jaasi bi yé bi yéeféer yi séenee poussière bi di ñëw ndax fas yi ni ñuy ñëwee ñu seen poussière bi ñu ne julli di renfort bu bëri ñëw nañ ñu daw kan moo def loolu jigéen da ngay jàng même histoire Fatima almaghribiya keroog bi mu keroog bi mu tabaxee jàkkam ci nga xam ne baayam dee na bàyyi kook alal bu bare bare bare bare bari benn ingénieur la woo mu ne ko terrain bi mu ne ko ah mu ne ko jàkk laa fi bëgg jàkk joo xam ne nangami mètre carré keroog bi ñu commencé gas fondement bi ndaw si commencé woor di fanaan ci tabax boobu ñuy def di naafila su xëyee suba woor bu guddee muy naafila ci place boobu ba jàkk ji xëy pare loolu moom mooy liggéeyu l'islam il fallait que gars yi démb fa ñu jaaroon pour sonn pour l'islam tasaaroo ñun tey jii bu nu bañee nax suñu bopp foofu la ñuy jaar bàyyi bàyyi liggéeyu taqale ci l'islam liggéeyu taqale xam ngeen liggéeyu taqale da ngay wax benn romb benn waaye léegi ne ko ci loo ne mu ne damay taqale rek noonu ngay taqalee pour dund nag noonu la ñu war a fexee taqale l'islam pour mu taqoo pour yëf yi dem waaw paa rek ñu nekk di ci yëngatu ni ndànk-ndànk di déedéet yëf yi liggéey la laaj saxaaba yi dañoo liggéeyoon xoola keroog bi yonent bi yoon saasam bi yónnee mu'tata dafa woo ñetti nit mu ne leen yéen ñett yéen yor drapeau bi bu kii deewee na ko kii jël bu kii deewee na ko kii jël bu ko kii deewee na ko kii jël ñun bu doon ñun la dañ naan bu kii deewee na ndaw ñibbi Abdoulaye am ni Rawaha ana foo nekk mu ne maa ngi nii ana Zeyd foo nekk mu ne maa ngi nii ana jaafar foo nekk mu ne maa ngi nii jaafar yoral drapeau bi bu dee abdullah ibnu rawaha jël ko jaafar jël drapeau bi ñu dagg loxo ndeyjoor bi dagg loxo ndeyjoor bi mu yore woon drapeau bi ñu dagg loxo càmmoñ bi xanaa amatul loxo bu doon kenn ci ñun fi lu muy wax amatuma loxo mu kepp drapeau bi ak ñaari kuuñ yi ñaari daggit yi mu kepp ko ne drapeau buñ bind laa ilaha illa muhammad rasulullah warul laal suuf deret ji di ko sang fa lañ ko yéeféeri fekk duur ko benn jaasi ci digg bopp bi ba ci xol bi balaa drapeau bi laa suuf abdullah ibnu rawaha daal di koy jël yonent saa salaam fi mu nekk midin ndax dee bi ni mu mettee la ko yàlla informé ne rey nañ jaafar yonent bi génn dem këram dugg biir këram daal di informé soxna yeeg doom yi ne leen jaafar wax nañ ma léegi ne dañ ko faat dëkkandoo yi commencé ñëw mu ne leen isnaw ala jaafar taaman fa inna lahum ma yashghiluhum jox leen waa kër jaafar toggal leen waa kër jaafar ñu lekk loolu moo tax ci dëj ci dëj ñuy tere kër gi nit ki dee ñu togg ñoom mais xam nga loolu Sénégal mënu fi am Sénégal kër gi nit ki dee la ñuy togg waaw ci li waa ji bàyyi sax la ñuy jël dem yóbbu jënd nag wala waa waa mbokk yi dajaloo ku nekk indi 5000 ñu jënd nag commencé noos te loolu l'islam daf koy tere yonent bi lan la wax defaral leen waa kër jaafar lekk ndax tey dañoo occupé waaye da doon toog ba ci yàgg moom yonent bi pour wax nit ñi jaafar ci loxoom yooyu ñu daggoon lan la ko ci yàlla fay yàlla fay ko ay laaf muy naaw di ànd ak malaaka yi léeg-léeg mu toog ak di waxtaan ak saxaabi ba càgg nii ne këj toog concentré wu ay quelques secondes su siggee xool saxaaba yi ne leen fay leen jaafar mu ngi leen di nuyu saxaaba yi ne ko anamu mu ne mi ngi nii di naaw ànd ak malaaka yi ñaari loxoom yi yàlla yéeféer yi daggoon ca xare ba yàlla fay na ko ay laaf mu ànd ak moom di naaw kon liggéey bi du lu ndaw dama leen di faral di saa yuñ dajee ma leen di soññ di leen wax ngeen takku wallahi liggéeyu lislaam du lu ndaw liggéeyu lislaam weesu na ay ay ay ay weesu na foofu surtout tey foo dem ci adduna bi islam day yëngatu foo dem ci adduna bi l'islam mooy yëngatu loolu moo tax yahud yi tiit nasaraan yi tiit ba États-Unis d'Amérique ñu tiit di jouer ay film ci yonent bi pour jéem a wàññi jullit yi ba Égypte gis ngeen président toog président bi fa toog bëgg a indi charia ñu koy créer ay problème parce que xam nga lu ko waral mooy islam yonent bi alayhi salaam dafa am ay signes yu mu joxe woon ne ginnaaw moom bu fi jógee am na lu fiy nekk bu fi loolu jógee am na lu fi nekk bu fi loolu jógee am na lu fi nekk yonent bi du joxe ay signes ba l'islam fu muy tumarankee ba nit ñi yaakaar ne dee na waaye ñu jékki-jékki gis ko muy ñëwaat te mooy jamono bii nu toll olof yi nag dañuy wax ne train bi buy daw yéegal boo mënul yéeg langal bu la fi bàyyee am alku nga ku repp ba daaw bi bàyyi ko fi wallahi perte na su yeboo ngeen góorgóorlu bu yeboo ngeen takk xam ne liggéey bii du liggéey bu sedd du liggéey bu yomb ku ne ku ne damay remplacer mburu ci puur mburu kan moo ko mën a remplacer ci puur xoolal mburu lu muy daj balaa muy nekk mburu waaye su paree ban heure ngeen di gis nit ñi di ko rang ban heure am na ñoo xam ne dëkk naak ak séeréer soo xam ne buñ génnee fajar pour boulangerie lañ jëm billaahi billaahi buñ génnee fajar rek jëwal nañ boulangerie ba dundeelu seen kër loolu nga gis leen ñu bokk ay kilo di ñëw waaye xool leen balaa balaa nit ñi dem di ko rangi di ko jël lan la daj ah fan la jaar balaa muy nekk sax su fëriñ fan la jaar ca tool ya ba mu jógee ci tool yi bala ñu koy sotti saako yi bala ñu koy yóbbu ca bala ñu koy def fëriñ lu mu daj ba ñu ko defee fëriñ ba ñëw bala ñu koy def mburu lu mu daj ah beneen bi mooy da ngeen di xool ki ñu bëgg a roy yonent bi lan la daj pour l'islam taxaw ndax lu sedd la ah lu neex la lu yomb la ah loolu daf lay wan ne kon lii ngay bëgg a dund yow est-ce que xam nga lii lan la li nga bëgg a dund nii est-ce que xam nga lan la loolu moo tax ma wax sànq ne farq bu rëy moo tax suñu digganteeg saxaaba yi ndax ñoom dañoo amoon iman ñuy xaar alxuraan wàcc ñu jëfee ñun am nañ alxuraan waaye amaguñu iman loolu mooy différence ak ñun ak saxaaba yi ñoom dañoo amoon lan iman bu wér ci yàlla ndax gis ngeen dañu gëmee xoolal bilaal dóor nañ ko ci jamono yoo xam ne mokk lu dul ixlaas suratul ixlaas d'accord ngeen ñu koy dóor pour mu weddi yàlla ci jamono boo xam ne benn saar la mën muy lixlaas te jeexul suñ koy dóor naan ko weddi yàlla mu naan ahadun ahad ñun ñaata saar lañ mokkal fii fii lu bon bon lu ku dee dee mokkal nga fukki saar ci alxuraan Tufayl ibnu Amr keroog ba muy dugg ci lislaam yonente bi ñetti saar la ko jàngal fatiha xulangere falaq xulangere bi naas ñenn ñi ne nañ xaamim la ko yonente bi a jàngal Tufayl daal di yuuxu ne ko ya rasulallah inna dawsan kafarat billah يا رسول الله إن دوسا كفرت بالله وفسى فيهم الزنا فارسلني إليهم بن سار la yonent bi jàngal waa jooju nga xam ne dañ koo tiitaloon keroog ba muy ñëw ci màkk ñu mu fekk tey information comme ni mu mel ci àddina bi nga xam ne dañuy fenal lislaam di sosal lislaam di fenal alquran di fenal yonent bi ndax nit ñi bañ lislaam xoolal tey li ñuy li ñuy wane ci taaru lislaam mooy ay reykatu nit lañ dañuy def ci ay jàkk bomb dañuy def ci ay marché bomb dañuy def ay attentat kon lii baaxul ñu ay reykatu nit lañ ay assassin lañ et puis dañuy xañ nit ñi seen liberté ku ku ci bokk nangam nangam et puis dañuy dañuy noonu la tufaylu jamono boobu mu doon dem màkk dafa mel ne jamono bii tey ni ñuy fenalee lislaam tufaylu nee na tëll màkka rek gars yi daal di koy sonn ne ko foo jëm mu ne kaaba ga foo jëm mu ne kaaba ga lay uti damay ziyaara ji ndax sama commerce bi am barke ñu ne ko ah attention am na benn waaye bu nekk ci kaaba ga di commencé woote nee na yonant la waaye boo demee na nga fexe ba bul ko déglu ndax boo ko dégloo rek mu tàqale la ak sa waa kër day tàqale diggante ndey ak baay ndey ak doomam jëkkër ak jabar képp ku am mbokk boo dégloo waajoo ji da ngay bàyyi say mbokk ñu tiital waaji tiital waaji ba mu mu ne bi mu demee dalam fi mu dal mu xëy war a dem ci kaaba gi bi muy dem dafa dem yóbbaale ay nopp yu ñu sakk coton lan moo tax waaji jël coton sakk ay noppam parce que bu demee ci kaaba gi bu mu su fa fekkee waajooju bu mu ko déglu waaye mbokk jullit ñi est ce que witteen mën na téye kàddu yàlla mën na ko mu neex yàlla waa ji génn ñëw dem kaaba ga mu ñëw fekk yonent bi alayhi salaatu salaam taxaw di waxtaan léeg-léeg alxuraan bi yonent bi di jàng ngelaw li daal di koy jël ci kàttanu borom bi daal di koy sànni ci nopp waa ji mu romb witeen yi romb tympan bi daal di dugg ci xol bi waa ji da doon gaaw ba caag mu commencé di di réegu léeg-léeg nga romb dara fekk nga amoon ay yitte nga doon waaxu wala ngay daw bëgg ngaa xam lan la da ngay wàññi say jéego léeg-léeg nga wàññi nga gis mu gën a am solo nooy def taxaw léeg-léeg boo taxawee mu gën a am importance nooy def nga ñëw ba séen nga fekk mu gën a am solo nooy def nga jël seize toog tu fay li noonu la def day déglu alxuraan bi di déglu di déglu da doon waaxu ba ci yàgg muy muy muy wàññi jéego yi ba ci yàgg mu ñëw ci yonent bi ne ko samitu maqalata qawmika fii dégg naa say mbokk li ñu wax ci yow yonent bi ne ko lan nga dégg lu ñu wax mu ne dégg naa ñu ne yow da ngay tàqale ndey ak doomam jëkkër ak jabaram lu nekk lim dégg mu wax waaye wax ji ma dégg mu génn ci say gémmiñ dugg samay noor wax ji du waxu nit est-ce que dëgg la yàllaa la yónni bu fekkee yàllaa la yónni dëgg la li la yàlla jox na nga ko jottali jaam ñi waxal ma dégg ñun baa koy jàngal benn xaamim waa ji daal di yuuxu ne ko yaa rasulallah inna dawsan kafarat billah wa fasa fihim zina farsilni ilayhim yow yonent daws dëkk bi ma bokk nga xam ne falaa jóge ñëw fii mag dañoo wedd yàlla ay yéeféer lañ ay njaalookat lañ ay naankatu sàngara lañ dama bëgg nag léegi yow nga yónni ma ma nekk benn yonent bu dem waar leen pour génne leen ci caaxaan yooyu yonent bi daal koy ñaanal jëbi am lumière ku ko xool rek lumière ngay gis ci jëbi jëbi tàkk di tàkk mu ne yonent bi déedéet fii nga ma ñaanal ñaan gi mu nekk fii su ma demee dëkk ba dañ naan li ma bàyyi xërëm yi moo tax ma alku dama bëgg ñaan gi nga ñaanalaat ma ko mu toxu yonent bi ñaanal ko ko mu toxu ñëw ci gémmiñ gi suy wax ak nit ñi lumière di génn waaye gis nga tufaylu moom mu dellu dëkkam kan la njëkk a tuubal papaam ku ci tegu jabaram noonu la toppee dëkk bi porte à porte buntu kër par buntu kër buntu kër par buntu kër ba at bi muy yóbbul yonent bi waa dëkk ba ci la yóbbaale Abu Hurayra Abdurrahman ibnu Sakhra Dawsi ki nga xam ne moo ëpp lu monkal ci hadis yonent bi Abu Hurayra ñaata hadis la mokkal 5374 hadis kan moo ko dugal ci lislaam Tufaylu ibnu Amr yonent bi sax indiwu ko kon li ma leen doon wax mooy liggéeyu lislaam bu dee jigéen du muuru kese abadan weesu na foofu bu dee góor du am tubéy bu gàtt wala am sikkim wala am koppati weesu na foofu yëf yi dafa am lu mu laaj dafa am lu mu laaj loolu suñ ko ko joxulee dañuy sonal suñu bopp dafa laaj xam sahaaba yi ni ñu sonne woon pour diina tas xoolal yonent bi alayhi salaatu salaam jóge na màkk dem taayif ñu duur ko duur yu métti mu delluwaan màkk xoolal ni ko waa màkk def combino pour rey ko mu génn dem midin est ce que bàyyi na màkk moog waa màkk moog waa màkk ba keroog bu muy ñëw fatxu màkk di ubbi si màkk ñaata junni nit la indi dix mille hommes dix mille hommes ñu wër màkk mu ñëw daaneel xërëm yi raxas kaaba gi ba mu set ñetti téeméeri yàlla ak fukk ak ñett la fay mu daaneel lépp qul jaa al haq wa zahaqa al batil inna al batil kaana zahuqa bilaal yéeg ci kaw kaaba gi nodd keroog bi bilaal yéegee ci kaaba gi dafa am benn yéeféer bu ne alhamdulillah maa ngi sant yàlla ba sama maam fekkewul baaxoñ bu ñuul bi yéeg ci kaw kaaba gi noonu ay alquran daal di wàcc ci waaji li mu wax ya ayuha nnas inna xalaqnaakum min zakarin wal unsa wa jaalnaakum suuban wa qabaila li taarafu inna akramakum inda allahi atqaakum ndeke du ñuul la fadlun li arabiin ala ajam illa bi taqwa ndeke du dret du du yaram du couleur pas-pas la bu fekkoon ne couleur kese la bilaal du nekk noddukatu yonent bi xoolal loolu moo tax gis nga li may wax ci Sénégal erreur yu garaaw yi ñuy def dañ yaakaar ne bilaal benn jaam la woon moo tax gis nga jàkka yi ñan ñooy noddukat yi géwél yi wala uude yi wala wala wala wala wala ñooñu rek ñooñu kese da nga dem ci jàkk ñu ne jaam yi ana dañuy tànn bilaal ñu ne waaw ñu seet ku fii jaam abadan bilaal jaam la woon waaye kan moo ko goreel est-ce que jamono bi ñu koy goreel jamono boobu la doon nodd avant fan lañ ko goreelee bilaal fan lañ ko goreelee su ngeen ko xamul ma teg micro bi góor ñi laay laaj bilaal fan lañ ko goreelee ban dëkk mak fan la nodde midi kon diggante nodd bi ak goreel bi ñaata te lan moo tax mu nekk noddukat daf ko gën a mën daf ko gën a mën yonent bi ne nañ ko jox bilaal juróom benn saxaaba ñu gént nodd amuñu woon nuñ nodde parce que dañu ne woon bi jàkk ji pare dañu ne woon nañ ut béjjén ñu ne kon dañuy nuroog yahuud yi nañ ut kolos mu ne dañuy nuroog chrétien yi ñu bàyyi noonu parce que yonent bi daf buggul ñu nuroog ñoom waaye léegi kon yonent bu ñëwoon fi fekk ñuy feetu 31 décembre ak 24 te dama doon bu ñu nuroog ñoom nu muy demee kon dama bëgg suñ jogawaatee fii ñu càmbar suñu liggéey yii ñuy def est-ce que dëgg dëgg dëgg du liggéeyu taqale est-ce que du liggéeyu forforlaan est-ce que dëgg dëgg ñun ñu ngi ci yoonu liggéeyal islam pour sunna tasaaroo pour nit ñi ñëw dund sunna est-ce que ñu ngi ci loolu nit ñi bu ñuy liggéey di dem di dem di dem di dem gisuñu lu yokk gisuñu dara dañu war a xoolaat ndax yoon wi ñu jaar foofu la ñun jullit yi bu fekkee ñu ngi yëngatu ci diine te kenn wuyu siwuñu te dëkk bi ñu nekk ñëpp nekk ay jullit war na ko laal suñu bopp est-ce que dëgg-dëgg ñun ñu ngi ci yoon bi yéen di bàyyi saas dana wax sahaaba yi su ngeen demee woote ji nit ñi ñëwuñu rek yéen ni ngeen wootee moo baaxul dafa am benn benn yahud mu dem benn dëkk ci dëkku lislaam yi lan laa ci jublu dëkk boo xam ne comme nee nañ ay jullit lañ waa ji ñeent fukki at mu nekk ci dëkk boobu di liggéey këram liggéey kaayam këram liggéey kaayam këram liggéey kaayam mais wetu fi muy liggéeyee dañ faa bind benn tableau ku bëgg a xam yàlla fii la waa ji mosul bàyyi xel tableau boobu benn jour mu de muy xëy rek muy wàcc rek gis tableau bi mu gis ñu bind fi ku bëgg a xam yàlla fii la mu wàcc liggéey bi rek dem foofu sone bunt bi am ko ubbi mu ne ko mais seen tableau bi li ngeen ci bind nag waa ji ne ko looloo am mu ne waaw man de vraiment bëgg naa koo xam nga waa ji daal dugg ñu jox ko ay document mu dem lire document yi affaire bi indil ko problème ba mënul nelaw mu demaat ñu joxaat ko yeneen mu ñëw ne ana imam bi kan moo jiite fii ñu ne ko imam bi kañ la fi nekk ñu ne ko vendredi vendredi mu ñëw mu ne imam bi yéen bu ngeen deewee yéen ñi ñëpp di ngeen layoog seen borom ndax man am naa fi ñeen fukki at ngeen yor lu mel nii ngeen denc ko fii génnu leen joxe wuji ko joxe ji ko bu ngeen dee yéen am ngeen responsabilité seen kanam borom man nag léegi mbir mi damaa ñëw pour bokk ci gis ngeen waa jooju bi mu duggee ci lislaam xam ngeen après lan la def dafa jël bisu alxamis ci dundam may ko yàlla du ci liggéey xam ngeen lan lay def dem di jël ay téere yu ñu traduire bu tey mu ne mbedd mi laay jaar ku mu dajeel kër gu mu gis mu tëju mu fëgg bu ñu ubbee mu ne leen am benn ku mu dajeel ci mbedd yi ne la am benn bu jeexee mu dem ñibbi carton lay yenu bu jeexul du ñibbi mbedd bu mu jaar suba mu jaar alxamis beneen mu jaar beneen alxamis beneen mu jaar beneen waa jooju li mu dugal ay nit ci diine tey te nit ku ñuul la ah waaye ma nga ca dëkk tubaab ya kenn xamul nu mu toll waa jooju tey ni mu siiwee dafa egg ba màkk ci aj ci arafaat nit ñi nekk ci arafaat di ñaan ñu gis benn waaye mu ngi taxaw yëkkati ay loxoom deux heures de temps mu ngi yëkkati loxo yi toogul benn waaye di ko xool rek chaque instant waa ji xool ko gis ko mu taxaw rek yëkkati loxo yi waa ji di ko xool rek bi mu paree waaye ñëw ne ko yow ban nosaanaanati nga mu wax ko waaw mu ne ko foofu dama faa dégg benn waay buy liggéeyal diine nangam ak nangam lay def nangam ak nangam lay def est-ce que yow xam nga waa jooju mu ne ko man la wala dëkke kooku la non munu nekk yow lu tax nga ni yow la mu ne ko moom man la waa jooju nan lañ la wax la tudd mu wax ko mu génne ka passeport am ne ko xoolal mu xoolal mii moom waa jooju tamit bi mu xamee ne kii la mu ne ko warloo naa ak yow at bu nekk dinaa la yónnee tant kees pour nga tas ko ci islam gis nga liggéey lislaam noonu la waaye bu ñu jàpp ne liggéey lislaam nelaw la nangam nangam dem benn tour ñëwaat tëdd nelaw fanweeri at ñu ne la yow gëj ngaa ñëw nga ñëwaat bagay bagay bagay loolu mooy liggéeyu taqale loolu nag te yàlla xam na ne nax sa bopp ngay nax naxoo yàlla sa bopp ngay nax ndeysaan sa bopp ngay nax olof yi nee nañ ku noppi nax sa bopp sa aajo faju kon incha allah maa ngi yemale fi kàddu gi lenn li ci man la woon leneen li ci yéen boo amee ay question incha allah ñu mottali ko ci asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu di ziyaare nag waa kër ñoom Omar bu baax vraiment di am mbégte ci moom bu baax a baax ak kontante ci moom ndax bu ñu xamante ak léegi xaw na mu ngi xaw a takku waaye ci lii lañ xamante mu doon ñëw ci daara ji di déglu tafsir ba alhamdulilah rabbil alamin mu nekk ku bëgg diine ñu ngi ñaan yàlla yal na ko yàlla fay yal na ko yàlla def magum lislaam ñu ngi ziyaare waa kër gi yëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu
waaleykum salaam wa rahmatullah jazakallah xeyran